yeah what's up what's up sama gars yi salaam jaamukum mbedd niggas baa ngi nuyoo leemaakum mooj wóolu waa déggu ko fay ma is yo boy ji ji jili der akay Messi akay mëne fu ne akay takke tey nag danoo seet si benn bandi yi Paco Wiz yi from Tivaouane moo woote Sorano booy bu ndaw dans l'histoire hip hop galsen booy bu toll nii tëgg soraano musul am waxuma sax hip hop galsen mais musique sénégalaise musul am booy bu toll nii ñëw jël Sorano feesal ko dell Paco Wiz werante nag duñ ko def dañuy dugg si biir léegi léegi xool Paco Wiis yi nu mu def Sorano yéen ñi di seetaan yéen a ngi seen seen TV Equivox léegi léegi sama gars yi ma wan leen li ci biir ñu génn. Equivox TV ñu dalal benn bande bi nga xamante ni day joobal hip hop. daan def chaque année benn compétition bi nga xamante ni su groupe WhatsApp bi lañ koy defee mais ay freestyle lay nekk bu demee ba quart de finale mu génnee ko ci mbedd mi ay sayfa booy bii sax may waxal yow finaliste la woon bu 2018 bi. 2019 euh, bi ba tey amagul lu xew lan la luy problème bi. yee waaw question boobu ne sa war a tontu parce que ñun double pop service dafa am lu muy doxee ñun bu ñu génnee artiste. dañ lay topp ba génne sa produit ba pare bu ñu génnee sa produit ba pare si la ñu door a teg beneen programme yi dafa bëri tey la 23 ni nga fa am Paco Wizi ni nga am dib ni nga am dib dib du nu gis ni nga am nit dof kii la ni nga am lu dul rab gaa seen bëgguñu programme yooyu yëpp moo tax ñu préféré xaar ba janvier ñu tàmbaliwaat programme yi te xam ne gars ñu ngi seen kaw ñu ngi ñëw ko wax ok kon janvier mën nañ xaar mu démarrer incha janvier incha loolu la ñu bëgg incha ñu démarré waat programme bi démarré waat saay fa yi mais double pop service lay tàmbalee après ñu door a nekkaat si yeneen quoi. mën na ne le plus jeune dañu hip hop galsen moom moo feesal Sorano te bu demee Grand Théâtre dina ko feesal booy dafa am talent dafa mën rap dafa mën way lépp la tënk ñaawu ko nii moo tax ñun sunu fierté la ko benn saa nii. moo tax tey ñëw si bés bi. mënul woon ñaax ko quoi lu mën a ñaax foog mu am benn instant nii Pawlish for life gars ba tey yéen a ngi si Equivox TV ñu dalal fi benn bandi Mr Ndobine su ma nee Ndobine gars yi xam nañ ko bu baax a baax euh, Flow Up 2018 2019 Ndobine moo ko jël moo ngi nii taxaw Ndobine from Kasinkakuru ndobin from benn araf yëmbal Ndobine naka mu. asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu bu baax a baax euh, sama néeg sama DJ maa ngi nuyu ñëpp ñu leen di suivre ak fu waay mënti nekk quoi. Ndobine tey loo yëg bi nga ñëwee gis lii booy bu ndaw def ko Paco Wizi loo yëg. am fierté ah fier fierté bu bu rëy la ci man parce que Paco sama fils la sama booy la xam ma Tivaouane sama secteur la sama chaîne la mën naa ni su ma demee Tivaouane Peulh day mel ni yëmbal laa nekk quoi xam nga euh, yàlla def na man ak moom ñu xamante depuis 2016 bokk nañ sax compétition mu nekk booy nekk xale mais teewul mu gëm li muy def quoi nekk benn booy bu jàmbaar xam nga par la suite mu bokkaat yeneen compétition mais da lay woo grand bi foo nekk. lan laa war a def lan ak lan ak lan dañ daan génn fu nekk di ko support moo tax tey bu xewle dañuy ñëw teewal ko quoi parce que Tivaouane Peulh la dëkk te Tivaouane Peulh ñun suñu suñu fief la Paco aussi suñu fierté la quoi mooy loolu kontaan nañ trop tey dañu dañu am contentement bu rëy rëy rëy ñëw fekk mu def nii salle bi feesal ko xam mu nekk booy bu tuuti mën naa moo gën a nekk xale ci hip hop Sénégal quoi comme loolu challenge la challenge la ci booy yi moroomam yi challenge la sax nag ci ay magam quoi am na solo temps yi ñu gis nga génnee benn single for xoos Porxoos bu ko waxee gars yi di déglu xam na li may wax wala gars yi di seetaan Istala nga ci sànni ay pig yu méttee métti lu waral boobu ba léegi yaa ngi topp Istala mayoo ko dara lan la. non du topp quoi parce que mën naa ni euh, bi mooy sama première son may clash. bi mooy sama première son. non mais daje ngeen benn saayfa après saayfa bi mayoo ko dara nga pare si saayfa bi ñëw. non saayfa bi boo seetaanee saayfa bi nga xam ne is moom moo saaga Ndobin quoi mais Ndobin saagawul is bi ma ko ñëwee bi ma ko gisee mu daaw yéeg si saa fi dama am fierté dama kontaan dama ni lii mooy underground lii mooy hip hop lii mooy géro xam nga wàcc na donte ñun moo ñu raw. moment yooyu noonu quoi moo ñu féete kaw mais wàcc na ñëw teew ñëw yëg si Saayfa bi loolu fierté la si ñun ñuy gis benn is ñuy bokk Saayfa mais mu ñëw après si ñëwaatee deuxième tour Saayfa dañuy gis ni dañ ko wàccee parce que Saayfa moom suñu suñu yëf la mais ma nekkuma di topp benn rapport di ko clash wala genre affaire yi demee noonu aw ma sax time boobu maa ngi ci leen mais for xoos be retour yi loo ci am moo ko ci ngaaka xaaru ma ko ci is xaaru ma ko ci kenn parce que suñu carrière lañ nekk di liggéey di job suñu album yaakaar naa moo solo ay clash ay yeneen ak yeneen TV show bi Paco booy bu ndaw organiser Sorano duy ko ba mu fees dell. dafa Sénégal yëpp di ko seetaan. dafa leer noo ko yëgee noo ko dundee. waaw contentement contentement bilaay walaay dama kontaan di remercier waat. alhamdulilah laay wax avant tout mhm. jërëjëfe yàlla suñu borom sant ñaari waajur yi sant képp koo xam ne dëkk nga Tivaouane Peulh tey ñëwoon représenté wu xam nga juste pour acte bi dafa nice quoi vraiment bi ma duggee gis gars yi dama kontaan mhm. bilaay walaay taalaay contentement tey rek laa yëg kese. bu ñu doon wax booy bi mënul feesal saal bi. Mm-hmm. waaw bon pour man loolu nekkul woon nekkul woon nekkul woon débat quoi du débat vraiment man loolu laa gisoon du débat parce que koo xam ne mi ngi liggéey caaxaanu deful leneen musique bi la def muy léppam donc pour man bu ñu nee mënul feesal bërëb sangam te moom muy def musique yàgg a teg xam ne ñuy organiser am benn structure bu nekk si ginnaaw pour man bu ñu waxee loolu noonu ay faux débat la quoi c'est lan la visé jamono bi ñu toll ginnaaw bi nga feesalee grand Sorano grand théâtre la juum nga fi nga juumee noonu isa duma fa dem. bon waxaguma. <laughs> incha allah am solo kooku en tout en tout cas dinañ ko defaat. Mhm. ci beneen salle. incha allah incha allah. la yàgg naa ko wax ba ma koy wax du tey kookoy Paco Wizi mu duy Sorano ba fees sama gars yi sama wax de leen ko bàyyi xel ma wax artiste bi ba leen ko xel sa deful dara depuis dib dundu gis ngaa ko blende ba ci Paco Wizi respect jili deer la woon ñu dem yegguwaat ci yeneen show yi sama gars yi léegi léegi. yeey jaajëf sama gars yi comme nu ma leen ko waxee sànq bi ñu nekkee Sorano si Paco Wizi instant bi ñu ngi yëngu leen su ne yëngu leen sa xel day dem tey ci Baye Maïk tàmm na ko jël daaw duy na ko ba mu fees dell ba mu paree di njibbi gars yi dañ taxaw ni ko doyalunu tey jëlaat na ko def na ko na mu ko defoon daaw ñu fekk fi benn grand boo xam ne def na lu bëri si Baye Maïk ñu gën ko xam si légendaire yi Chaka Béya bees Chaka Babs ñu ngi lay bégg bu baax a baax di la laaj naka nga dundee show euh, bi nga xam ne sa booy sa rak sa xarit Baye Mike moo ko teg. yee jaajëfatee ji maa ngi lay bëggee bu baax a baax et puis euh, di la wax ne euh, kontaan encore ah daaw la woon ren yu fekkee ko waat donc mu nekk loo xam ne lu am importance la Baye Mike moom sama diggante ak moom je pense que Sénégal yëpp xam nañ ko. voilà tey toll na foo xam ne je pense que ak Canal 4 ñëpp dégg nañ ko ñëpp gis nañ ko. waaw tey nag dañu ñëwoon pour support ko waaw wan ko ne chaque fois que ñun ñu ngi ci wetam comme moom ni mu nekke woon suñu wet daaw ñu wan ko ne ñun tamit ñu ngi ci wetam voilà donc euh, li ma taxoon ñëw surtout tey moo doon euh, andiwaale surtout Lady Wiko waaw bu nga xam ne moom aussi euh, mu ngi pare lancé single mu nekk benn artiste boo xam ne aussi Canal 4 production la bokk Baye Mike moo nekk instant sa di job si album bi man aussi maa ak moom benn projet album voilà donc tey ñu ñëwoon nii pour mu mën a ñëw def prestation et puis ñu présenter ko public bi ñu mën ko xam donc euh, Baye Mike moom euh, lu ma mën a wax si moom rek mooy euh, dafa may rappeler samay début rek waaw mooy lenn dafa dafa gëm boppam dafa dafay job Baye Mike dafay job boo koy fekk studio Kananka daf lay leer ne jobkat la waaw Baye Mike mun na toog si machine bi 10 heures matin ba des fois ay 21 heures di job waaw damay dem ba des fois man maa ko naan gars yow sonno doo noppali ko xanaa mais parce que loolu la gëm et je pense que loolu ñëpp xam nañ loolu ci moom ak euh, euh, surtout discipline bu mu am yar bu mu am xol bu nice bu mu am euh, moo tax mooy li ma ko nee naa ko lii c'est le début du commencement rek waaw des na ko li ci kanam mooy gën a nice Canal 4 nag dafa nekk structure boo xam ne comme ni ma koy waxee à chaque fois du label boo xam ne on a besoin de d'avoir cent artistes pour mu a exister ñun avec deux artistes rek mun nañu évoluer parce que comme ni ma koy waxee chaque fois ñun carrière la ñuy liggéey ak artiste on préfère am benn wala ñaar ñetti artistes yoo xam ne dinañu am temps concentré wu si seen carrière que am mille artistes yoo xam ne dañ leen di taf-tafee ñuy génn te seen carrière du sori. waa ba tey ñu ngi si soow baay Mike bi Force Mandiak soow ñu fekk fa benn grand moom it Cap de Sës ñi naan ko Cap de Heng from Daf kap gëj nañ la dégg depuis temps yële ci ginnaaw bi nga defee benn son di classe benn rappeur bu dëkk Medina ñu gën ko xam si Books. di boobu ba léegi déggaatun la lan lu xew. bon man di boobu ba léegi maa ngi fi ah, so bu loolu sànq la rek ah maa fi di ko représente so maa ngi sama joobu crew maa ngi nag si joobu fukkeen crew ñu ngi waajal suñu second album. maa ngi nekk aussi si job man ak Lasga bu Kosa Nostra ñu ngi préparé tam suñu album so job bi moo ñu tënk mais loolu just ci job bi la bokkoon et puis xam nga on l'a fait et puis xam nga on passe à autre chose lépp mujjee sa diggante ak boxe juboo am na sur les parce que tey da ngeen sànnante ay pég Sénégal yëpp jóg. sànnante ñu après mooy loolu ñun def grand ñun def ñun sànnante ñu pég la dañu clashante xam nga. jaar si tour ñëpp di dégg mais fu mu mujjee. waa fu mu mujjee mooy fu mu nekk nii ah sow clash la sow. xëy na mun nañ wax jeex na mun nañ wax jeexagul parce que bu ñuy wax ci positivement bi nga xam ne moom la ñuy defee mooy que c'est juste pour mën a dundal suñu gain pour dafay affaire ce qui est malheureux ci affaire mooy que nit ñi pare woon nañ pour def saay fa pour def moonu ci business bi mais moom après da ko rasu loolu la mooy mooy malheur bi quoi. mais yi nee nañ yow yaa delloo avance. non never ever loolu mënul nekk sax man gars yi xam nañ ma sow loolu man maa ko bëgg. loolu man maa ko bëgg man. mënu ma tey jii pare nga. ba suba ci ngoon maan parce que affaire bi loolu soo la baat bés na dafa a ñëw taxaw gars ñu ñëw ñu prouve yee affaire bi loolu la maan. fa nekk lu muy waajal jamono bi. album lay waajal man. mën ko xaar kañ. si 2020 bi incha allah. 2020 incha bi. non non instant bi mooy loolu. <laughs> waaw kookoy cap de saison. forom Taaf Guéro forom fa nekk respect ci moom bu wér-wér. ndaanaan la bàyyi la ko. ay Yeah. New Dugo Sibiri. Come on, yo. Before we end up. Yeah. Ah. I'm gonna be out. Put in energy work, work, Sunu hélas ba tey ñu dalal fi benn bandi F Manel génne benn projet bu naayif F de Gaulle tey ku xewle sax baay Mike bi nga xam ni moo woote Fosama Ndiak Sow moo nu jox projet bi gars yi déglu ko nangul ko mais li sénégalais yi di laaj kenn mooy F Manel kuy F Manel gars yi xàmmewuñ image bi gars yi duñ ko gis dañuy dégg ay sawnam naan waaji ndaanaan la ba tey mënuñu ko gis loxarti nañ ko waajee ngi nii F Manel F Manel lu tax duñ la gis <laughs> xam nga rek nekk si tunnel yi yaa ma gën a xam. mooy loolu mais merci beaucoup merci beaucoup euh, tey moom ngeen c' est c' est un jour spécial pour moi parce que Baye Mack yàggul sax bu ñu xamante noonu yàggul yàggul noonu quoi mais dix dix moo tax ñu connecté euh, mu nekk benn artiste boo xam ne maa ngi koy soog a découvrir vraiment. mu inspiré ma ci lu bëri parce que man tamit Ziguinchor laa jógee Casamance bi xam nga origine yi ñoo ko bokk mais moom da koy représenté à fond quoi da koy représenté carrément def na albumam boo xam ne san pour cent Ndiago la pour man loolu innovation la vraiment bon xam naa xëy na am na ñu ko def ci rap ci rap sénégalais bi mais pour man loolu on a besoin de plus de ça quoi vraiment pour représenter Sénégal te voilà quoi man ça me ma nekk fii tey partager moment bi ak moom génne album bi Forza Man Ndiago yes ça fait plaisir. mais am na solo mais F da nga génnee benn projet bu naay F de Wall mi ngi compéti mi ngi compétir si Galsen Hip Hop Awards yi mais ef lan la lu xew projet bi dafa man da ko génnee bëggoo ko wala lan lan la. non demee fa noonu. parce que gisuñu nga topp projet bi fenn gisuñu nga sonal ci sa bopp gisuñu nga def ci dara. yeah en fait demee fa noonu mais comment je expliquer ça c'est chaque projet day am benn histoire quoi xam nga bii xëy na lii mooy début histoire am mais bon yemul fii maa ngi liggéey ci loolu ba léegi maa ngi liggéey ci projet bi ba léegi projet bi am na am na yeneen projet yi ma bëgg a def ci kaw projet boobu noonu am na yeneen projet yu may pare à côté donc voilà quoi je me dis carrière carrière carrière artiste du Sénégal voilà quoi mënu ma mënu mënu fa demee surtout quand t'es seul yaay manager sa bopp yaay defal sa yaay defal sa bopp lépp en fait xam nga faw nga am foo jaar quoi mais bon that's what it is. mais fan lay représente pour gars yi xam F Manel fii la basé wu fan. man Sénégal laay représente xam mais am nga side boo xamante ni F fa la dëkk. non man man kenn mënu ma kenn mënu ma dëkkal fenn quoi. est que du looloo tax gars yi tamit parewuñ pour taxaw F quoi. waaw mais loolu kon en fait ça veut dire que en fait man bëgguma nekk koo xam ne damay damay damay euh, damay promouvoir euh, division en fait. parce que boo gisee mënuñu boo gisee mën na la kenn mënu ma dëkkal fen séeréer laa joolaa laa déjà loolu benn la dakaar fii dëkk naa fi fépp xam nga ñu ma fi xam bëgg nañ xam am na ñoo xam ne dinañ gis affaire bi xam xamee nañ ma xamee nañ ma Mermoz am na ñoo xam ne xamee nañ ma ñaari tali xam nga donc benn instant man je représente tout le monde képp képp koo mën a doon ngay bëggee hip hop ngay bëggee rap nga nekk benn jeune comme man di dund li ñuy dund ci biir Sénégal bi fii nii war nga reconnaître si man quoi loolu laa bëgg quoi. mais F mun nañ xaar euh, ay show pour projet bi. yeah yeah incha allah incha allah show dina am show def naa ay show déjà mais jeexul quoi yemul yemul si si yooyu kese quoi maa ngi pare yeneen ay son ay clip everything yeah. ba tey ñi ngi taxaw ak benn bande tay ji sin from Thiès. flow 2017 moo ko jël 2018 bi la jël tay ji naka mu. sant bu baax ginnaaw bi nga génnee sa projet boobu ba léegi yaa ngi lëlu Thiès nga nekk gi su ñu la lu xew lan la. waaw mais pourtant loolu ma ah, maa ngi fii projet bi genre projet bi mooy man man maay projet bi donc projet moom mi ngi demal boppam quoi mi ngi def ay yëfi boppam donc voilà ñu ngi ci ah ñu ngi joué ñu ngi ñu ngi ci gëj nañu rajo gëj nañ télé gëj kii mais quand même Olip moom mi ngi fi bien présent. non mi ngi fi. gars ñi ñu ngi koy gis ñu ngi koy liir ñu ngi koy gis fépp ñu ngi koy teg rajo yi. mais boo déggee ma wax la loolu mooy Taiji Scene gisuñu ko mu teg benn concert boo xam ne 100 pour cent Taiji Scene kese la. mais yow. yow da ngaa wala nu mu demee bi da ngaa wala na ko waar. façon instant bi yow xam nga ci lu nekk mooy 14 décembre. à Thiès donc euh, pour euh, comme ni nga wax rek premier concert Taiji Sine concernant Olip. donc loolu la ñuy njëkk a teg je pense balaa ñuy wax Dakar dara wala feneen je pense euh, base bi Thiès la. donc faaw ñu may ko waa Thiès. xam nga gars yi bégee defaraat bi foofu ba mu dëgër comme ça bu ñuy génn sax dañuy mën a ànd ak base bi sax dem fu ne ci. ci Sénégal ak ci àdduna bi donc euh, loolu la loolu loolu mooy premier pas bi mooy 14 décembre Thiès après bu ñu paree tournée yi ñu ngi ñëw naturellement. am na solo mais tey jii euh, danu gis sa projet Olympics mu bokk ci nomination Galsen Hip Hop Awards ci ñett catégorie yi bàyyi liggéey nga. alhamdulilah sant yàlla bu baax parce que loolu peut-être euh, ñu bëri ñu ngi rêvé loolu quoi ñu bëri ñu ngi rêvé rek seen tour affiché rek ci ci ci nomination yi bu yàlla defee tamit ñu dem ba bokk ci officiel yi. Ah, dañuy sant yàlla dañuy xam ne donc ñun voilà quoi ci liñ ne woon am na solo et puis ñaan yàlla tamit mu yokk en ka am na benn sound bu nekk si projet bi xaw ma ndax sénégalais yi ñu ngi koy déglu waaw wala déet sound bi freedom la tudd sound boobu bi ko gars yi di nan xam ne booy bi kat la wala du bindkat man lu may wax gars yi mooy nan dem déglu sound boobu projet bi bu leen neexee nan ma lépp <laughs> ñu déglu freedom d'accord freedom rek album la freedom mooy freedom disons moom mooy base bi moom moy expliquer genre lu tax ma ni olib lu tax ma ni one love yàlla point loolu di ko di nga ko gis ci freedom quoi donc effectivement et merci ci ci si li nga souligner loolu parce que dañuy wax rek tamit dafay am solo artiste loo loo xam nga looy looy bëggee bëggee di distrait distrait après day jot benn son sax nga posé wan gars effectivement lan la lan la lan la hip hop lan la rap music di signifier ak ci bind ci xam-xam ak ci ak ci ouverture d' esprit donc son boobu c' pour ça en tout cas sound boobu noonu mooy li ma lay wax hélas sound bu am niveau la sound bu kawe booy bi dimension bi mu bindee chaque jour dama koy laaj Daaro Maar mais munuma ci expliquer sax moom lu leer bind bi kawe na bro Diop rek incha allah li ci kanam raw li bët na gars yi bàyyi xel track boobu bu baax a baax. ñu ngi lay bëgg bu baax a baax. tey di rafetlu tamit parce que hip hop Galsen bu amee ay ñaari tànk ba tey di dox du kese. Euh, du graffeur yi kese du DJ yi du break danseur yi kese mais tamit animateurs yi dañ ci jouer rôle bu am solo mooy comme li nga wax rek am na koo xamante ne xamuloon son xamuloon kii mais par par chance mu dal ci déglu la nga playal ko yenn son expliqué ko ci dina tax dina avancement wu rappeur bi la mais avancement wu hip hop la donc tamit charatu yow charatu yéen yëpp animateur yëpp ñi nga xamante ne gëm nañ liggéey bi ñu koy def au sérieux maa ngi leen di big up leen wax bu leen bàyyi. lii la leen indiloon sama gars yi. ginnaaw bi ñu jógee Sorano ci Paco Wizi dem nañ fële yëngu leen force Mandiak soow ci baay Mike mu def ko nam ko defee woon daaw Equivox TV sama gars yi daw leen ngeen abonné seen émission hip hop bu fay am gaal seen sama game ak seen boy seen rakk jili der di ngeen am seen palato fan yi du yàgg dara respect si ñëpp